sëriñ Basiiru Abdu Xaadir agsi ci réewum Espagne bi mu agsee lii di murit yi eh, daal di nañ koy eh, teeru Euh, daa di koy euh, dalal fi nga xam ne si ne euh, moom moo di aéroport bu Baraxaas sëriñ bi aksi ànd ak lenn ci ay taalibe ginnaaw bi nga xamee ne jot na ndigal ci sëriñ Muntaxa Mbàkke mu ñëw ci réewum Espagne saafonteeg taalibe yi ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi dénkoon na ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nekk fii ci réewum Espagne liggéey bu am solo ci kërug daaru mannaan gi rawatina ci muket yi nga xam ne siine moo nekk ci euh, jumaay Touba ñu gis ci délégation bi mu ànd ak Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xam ne si moom moo fi toogal li nga xam ne si ne moom mooy Serigne bi maanaam jiite daayire kër Serigne Touba yi nekk fii ci Touba Espagne Serigne bi bi mu agsee nag daa di nay euh, euh, dem fi nga xam ne si moom moo di consul bu. Sénégal bi nekk fii ci Madrid waxtaan ak ñoom waxtaan ki nga xam ne moom mooy Mariama Sarr di ambassadeur bi toogal fii eh, réewum Sénégal jottali ko ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké yóbbante na ko ko rawatina ci ni mu nekk ak murit yi nekk fii ak jullit yi ak taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Espagne sëriñ bi nag su jógee foofu day dem wër li nga xam ne moom moo di réewum Espagne ndax ci dimaas ji ñi ngi koy xaar ci Bilbao ak yeneen dëkk yi nga xam ne si ne ñoo nekk fii eh, ci eh, eh, Espagne balay loolu sax dañuy teewlu sëriñ Bassirou Abdou Khadir ci Euh, wax ji nga xam ne si ne waxtaan na ko ak ki nga xam ne moom mooy consul bi ak ambassadeur bi nekk fii ci Espagne. bi ndax li yéex a yëg rek ci ñun la ndax man maa yéexee yëg leen damay ñëw daanaka bët bi ci naa ko ndax moo tax yéex ak suñu jëkk yitte yi di def taxaw di wutoon noonu nga taxaw yooyu suñu kaw si jot kon dañ lay sant bu baax di la gërëm ci nekkin wax yi nga nekkal ñoom ndax ñoom ñoo fi ndawi sëñ bi kon ñu ngi fi nekkale Sénégal ñoom ñoo fi nekkal sëñ bi yor fi kàddoom di taxaw taalibe bi yéen itam ngeen ne seen jiit seen kilifa kon boo seetee kàddu yi dafa jóge ndax am réew moom ba lañ koy wax euh, li ñuy wax nation mooy ñëpp dañu nekk jëm jëm nekk yoon xeet am am yenn kilifte moo tax alxuraan di wax atiiu llaah wa atiiu rasuul ulil amri minkum kon ñoom itam loolu buñ ko déggee noonu ndax loolu moo yombal seen liggéey bu nosuwul noonu rek bu ngeen leen bëggee taxaw lu mu yomb kon ñoom ñu xam li leen fi bàyyi leen tam ñeen xam ne ñoo leen fi kon loolu lu rafet kon dañuy ñaan baax rek yéen yéen itam taxawal suñu borom gën leen a dimbali gàttanal leen mot li seen mission ndax am réew doonul lu yomb doon responsabilité moo waaye koo ko xam ba defe ko noonu itam ba ñi nga nekk la gërëmal noonu ndax yomb ndax euh, taal bi bi moom da nga seer rek ñoom loolu sant nañ ndax loolu mooy li suñu tubaab bëgg ñu mel mooy ñu bañ a juyoo ne ñu nekk di tënku ci luwaay yi nekkal waaye yéen nga xam yéen la yàlla dénk loolu itam cër bi nga am ci moom jox leen waaye ñoom it yomb ñu yilif naa tax yomb ñu yilif naan ngeen di tax ñu jëfe yilif mooy yàlla ak suñu tubaab dañ dégg seen kanam gisuñ leneen kon ko ku leen comprendre rek doo leen doo leen mën a gis waaye boo xamee rek ñu yomb a nekkal li ñu ndax naka jekk ci histoire rek ci tubaab yi nekkee dañ leen ko daa seeral mm-hmm. waaye boo xamee fi ngay jaara ñëw da yomb di leen sant ci taxawaay bi nga xam ne Sénégal gi fu ko defal yoon bi fu ko defal ñoom la koy seedeel ak cant yooyu lii dafa doon loo xam ne ci teg baat waaye ñoom ñaar ñi ne yàlla seet na ko nag moom mooy si li mu wax moo nekk ci moom maam ubbi na boppam ba Sénégal yëpp ñëw na lu muy def dañuy woo këram di def ko réunion mu tënk li muy wax yëpp ñu ànd ci jàpp li nga ko fi tege daal mën na ko sëriñ bi waxtaan ak ñoom bi mu fi jógee nag daal nay dellu ca dalukaay ba ñu nar ko xaar comme ni ma leen ko waxee ci dëkk yi nga xam ne si moo nekk euh, ci Espagne ak li ko wër ngir mu waxtaan ak lii di murid yi ak jullit yi fi nekk euh, mu nekkoon seen mbokku daam ku mbëgge yi fii ci Espagne ngir Infos7